asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen ziara di jiital ci nuyoo beeg ziara bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalifi général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanalee mbooleem kilifa yi diine yi mbokk yi tey jeudi 14 mars 2019 ñu ngi ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Porokhane ñuy waajal màggal gi nga xam ne moom lañ jagleel soxna Mariama Bousso Diarratullah mu fas yéene doon le 28 mars bi ñu nekk. tey jii nag ñu fay amal guddi gu am solo muy guddi àjjuma gi nga xamante ni sëriñ am Satu Mbàkke moom sëriñ bu moom lay ànd ak waa ahlu xasida ak mboolem kilifa yi ñu ñëw fii nii di ko fi defee ci ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha Mbàkke Bachir. loolee nekk lu am solo loo xamante nii jël nañ ci matuwaay ngir lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum xasida yooyu bu ñëwee ñu mën koy def ci li nga xam ne la waree. li nga xam ne ñoo yor wàllu organisation bi jël nañ matukaay yi nga xam ne moo ci war def installation yi et tout li nga xam ne moo jëm ci bës bi di bernde ki nga xam ne moo di soxna baal Baali Muntaxa taxaw na ci taxawaay bu am solo moom it waajal li nga xam ne moo jëm ci bernde yi ngir mbooleem taalibe yi nga xam ne dañu fiy ñëw tey bàyyi ko fu ne ci biir réew mi ci mbooleem région yi ngir ñëw teew si ci guddi ga ajuma gu am solo gi nga xam ne ñu ko amal fii nii ci euh, Poroxaan guddi ajuma gi nag nekk na guddi ajuma goo xam ne dana am njàngu alxuraanul karim dana am jàngu xasida durus rajas ba ci kuréel mu nekk loo xam ne incha allah moom lañ fas yéene ànd ak yéen dëgtal leen ko mu jëm rek ci wàccaayu màggal poroxaan gi ndax euh, lép loo xam ne dafa jëm ci programme màggal gi door nañ ko fii nii ci poroxaan ñu fas yéene ci ànd ak yéen rek lépp loo xam ne dafay bàyyeekoo rek ñu jox leen ko ngeen mën koy dund ak ñun en temps réel. donc mbokk te téléspectateurs yi ñu ànd ak yéen ci guddi àjjuma gi nga xamante ni moom la ñu amal fii ci poroxaan lépp rek jëm ci wàccaayu màggal Porokhane édition 2019 jama رسول الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه القصيدة قبولا يتحجب منه الأولون والآخرون بلا آفة ولا كدر في شيء ما أبدا آمين بسم الإله اكفني الأكدار يا الله صف البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله كفني الأكدار يا الله صف البقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسع وملك وأطلق فيك يا الله واجهتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوزي بما شئت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته العولاق يا درا منك يا الله ملك يميني وقلبي السؤل يا ملكي بلا حساب بجود منك يا الله قدست سري يا قدوس مرتديا هني وعنك رديت الدار يا الله أنت السلام الذي سلمت كل يمن هيوب نفسي بتئي منك يا الله يا مؤمن في جناب در محكدر wahab li yal am na fi daarayni yallaahu wa bil muhaymini lishhad bistiraa'ika maa xadiyatu sirran ilal jannaati yallaahu anta al-aziizu allazii abghi bi izzatihi hissan yuxallidu li takriima yallaahu ajbarta lii innaka al-jabbaaru duuna liqaa kullal hidaa billazii lixtarta yallaahu كفيتني كل ذي كبر بلا كلف يا متكبر الكل يا الله يا خالق الخلق لخلق ما أشاء أبدا بالبسر والصفي والرضوان يا الله يا بارئ الخلق خذ للنفع دون أذى وخذ لي الأجر للجنات يا الله أنت المصور خلد للنبي بشرا وصويرا لي دون المكر يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لسات بشكري يا غفار يا الله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 faskur mubaasatati daarayni yallaahu xafatta yaa xaafidul ahdaa li wa madaw li xayri naawi bi xafdin minka yallaahu rafanta yaa raafiu daarayni martabati bilan xifaadin bi fadlin minka yallaahu anta almuhizzu alladi laazamtu izzatahu xillan muhazzan wa hibban fiika yallaahu anta almudillu alladi dallat li izzatihi الإنس والجن والشيطان يا الله أنت السميع الذي ناجيته زمنا وبالمسرات لي قد جدت يا الله أنت البصير الذي لي قاد جملة ما لي اخترت دنيا وأخرى منك يا الله حكمت يا حكم الباقي بكوني ذا فوز بما غاب من بشراك يا الله هدلت يا هدل أعدائي بغير لقاء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 أنت الغفور الذي لي قدت مغفرة مات حيوبي رديت عنك يا الله anta shakuru alladi kulli ladayka ridan wali shakarta jami a sa'i allahu anta alhaliyu alladi alaytani abadan bi gayri makrin wali halalta yallahu anta alkabiru alladi banat kabaratuhu li xuta minka kabira al ajri yallahu anta alhafidu alladi wajjata fi abadin ila siwaya alghida wa durra yallahu anta almuqitu alladi xallatta li ragadan bila xisaabin ilal jannaati yallaahu antal xasiibu alladi xad iktafaytu bihi xanil ida wala za wal makri yallaahu antal jaliilu alladi saaqat jalaalatuhu ila siwaanal ida daarayni yallaahu antal kariimu alladi xad xuttali karaman duniya wa uxraa maha tabshiiri yallaahu antal raqiibu alladi baanat siyaanatuhu kulliyati an siwa ridwaani yallaahu antal mujibu alladi qaadat bi gayri xanaa ijaabatun min kalil ixtarta yallaahu wa innaka alwaajihul baaqi wali abadan wasaata tawsiatan bil xitqi yallaahu antal hakimu alladi atlaqtani li siwa ma saani wa ma awta suu'a yallaahu antal waduudu alladi qaadat mawaddatuhu li sarmadan birida wal qurbi yallaahu antal majiidu alladi baanat majaadatuhu wa qulta li minka majdan faaqa yallaahu wa innaka albaaxisul mubxi bila dararin kafaytani jumlatal akdaari yallaahu anta shahiidu alladin qaadat shahaadatuhu li bistiraayika minni daaka yallaahu yaa xaqu lishat bi xaqin wamhu jumlata maa lam tarda lii mutlaqan bil fadli yallaahu anta alwakiilu alladi xad iktafaytu bihi في الدفع والجلب يا ذا الخلق يا الله أنت القوي الذي قويتني برضا في السر والجار يا ذا الأمر يا الله أنت المتين الذي قد كنت لي بمنن ولا توجه للمكروه يا الله أنت الولي الذي لا أبتغي بدلا به ولي كنت بالتأمين يا الله أنت الحميد الذي وجهت لي نعما بلا غرور وغير المكر يا الله يا محصي الخلق والأشياء جملتها كفيتني در ما أحصيت يا الله يا مبدئ الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحب رديت عنك يا الله معيد أحمد عود خدت لي كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري بسف العمر يالله مميت قد سقط موتي للهدى ولهم مكري سقط في الدارين يالله يا حي حمدي وشكري مع رضاي معا من يخرج دون سخط منك يالله قيوم قد قلت لي ما كنت أطلبه بغير كسب إلى الجنات يالله أوصلت لي واجد الأسمان دون هنا لك الوجود الذي لي بان يا الله يا ماجد اجعلني الدارين موتليا بغير كبر وعجب ربي الله يا واحد اجعلني الدارين منفردا مع المنى بعزيز منك يا الله لك التجائي بما اختير يا صمدي بشرا لجملة من أحببت يا الله أرديت يا قادر المخذول مندبحا إلى سوانا لك التحميد يا الله رزقتني الحج طيا أنت مقتدر مع الجوار وزور فيك يا الله أنت المقدم قدمني هنا وغدا ala kasiirin min al axyaari yallaahu antal muwaxiru adhabtal xidaa wa madaw ilaa siwaana ma al xisyaani yallaahu wa innaka al awwalu ij'alnii huna wa gadan fi saabiqiina bi fadlin minka yallaahu yaa aaxiru ij'alnii yaddaarayni wa rutabin wa safi umri ilal jannaati yallaahu يا ظاهر ارزقني المامول مرتديا هني وأزر بي القرآن يا الله يا باطن ارزقني الأسرار ذامنا وجل فؤادي ظرف الذكر يا الله هب لي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومن واليت يا الله وإنك المتهالي سق هداك مهن إلى سوى خسد در الدهر يا الله وسع وأطلق وأعتق دون مفسدة ولستجب دعوتي يا بر يا الله هلي تبت مهوت الذنب جملته تهرت كل يا تواب يا الله أنت الذي من هدى الإسلام منتقم ولانتقمت بما اخترت يا الله أنت العفو الذي عني عفوت بلا إبقاء عيب هديت الكل يا الله أنت الرؤوف الذي هاينت رأفته ولا توجه للأعداء يا الله يا مالك الملك lii wasaata doona jawan fil mulki wal malakooti dahra yallaahu yaa sal jalaali wa zal ikraami habli yamaa li ixtaarta dunyaa wa uxraa minka yallaahu xud liyaa muqsidul matluuba e su uraa xillan wa hibban maa ridwaani yallaahu yaa jaamiu maali al agraada murtadiyan xanii bi kawnika lii fi ljamhi yallaahu anta alganiyu alladi laa yantami xaradun ilayka abliya maa ahtaaju yallaahu agnaytani innaka almugni bila sababin fasarmadan liyakun bilfadli yallaahu أعطيتني إنك المعطي من الكرماء كفيتني جملة الأهداء يا الله منعت يا مانه الأسوأ من قبلي ولا توجه لي ما ساء يا الله منعت يا دار مني در في أبد ولا توجه لي الإدرار يا الله لي قدت في كل شيء نفذي كرم yaa naafi'an li zawil iimaani yallaahu nawwarta yaa nuuru kulli saafiyan abadan kafaytani zulama al-ashiyaa'i yallaahu qad qudta minka yaa haadi hidaayata man قد ساهبوا المصطفى المختار يلاهم أنت البديع الذي بانت بدائحه خت البدائح لي بالأجر يلاهم لي صف عمري يا باقي بغير ردن ولتبقني بكتاب الله يلاهم لي قدت جملة ما لي اخترت من منن وراثة وارث الأموات يلاهم أنت الرشيد الذي أرشدتني بردا في كل سي ما تبشير يلاهم أنت الصبور الذي وجهت لي ثمنا وأصبت بما آباه يا الله يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك السندى أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الوجود والآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلى أزكى صلاة بسلام الأعداد لها تسوه لي دائما مداد في الآل وصحبي وكف ما هذر أني وجادني إليك بالنذر يا سيدي يا منتهى يا ذرودا صلى عليك من سلتودا أزكى صلاة لتسوف كل ما لو سعيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وصحبك الدرر والآل شكري لرب كريم كان سكارا وارتجي منه في الدارين أبكارا شكري لرب كريم كان سكارا وارتجي منه في الدارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وسكارا وسكارا رجوت منه تعالى سكر عملي ورفع اليوم عني نعم خفارا رجوت منه تعالى سكر عملي ورفع اليوم عني نعم خفارا رجوت أن يمو وسالات جملته عني وتصغيره لدار كفارا إني أخاتبه في البار مغتربا ولم يزل جل قهرا وجبارا فجاتني ربي بالآلاء أبلياء عاد للبر ردلي كل من بارا على النبي صلي بتسليم بالكرم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 بأن يصلوا على المختار في الرسول يا من أمرت ذوي الإيمان كل أمم بأن يصلوا على المختار في الرسول من قبل الناس لا قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محى كسالي تقبل نظامي وصي كل وكراما ولا ترود ليا دلي من العمال فاقبلوا مني يا فضل لا مناقشة وقد بغيري حنا اللي بي أمالي أشكر بفضلي كسن وارضيا نبيه يا من به سرت ذا هدي ولم أميلي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه yaa xayra aadin adaam ni afdala subuni كلي بجاهي رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبالي وارفع نظامي ذا جودا وتكريماتا ولا ترودنه يا مذئب الإلال دم النظام إلى سعي الثحاب غدا ولا ترودناه يا مذئب القلال سواك لم أرج في سر وفي علان بأقواتك حقق رجاءنا لي يا رب كل وقدو لي بالرضا غرابي وما التمست بجاه المنتقى أنيل صلي وسلم على المختار في الكرامة وبشرنا بنظم أفضل الرسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin yassara li muyassiru lasiri maxtaaru li bila masiri wala lainu li siwaaya mudbira bima ala dahri yaduumu dabara mahaatu wajju almakaari liya baaxin aba bi dikrihi wa huwa liya أن رديت ووعني رادي بلا مكاري ولا أمرادي رد لغيري جيتي شيطانا من تيب الممر والأوطانا فر لغيري جهتي لعين يسوق لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت بي توفيق هاد قاد الإلهام قد أبدى لي مال بهام بدت لي اليوم برب الخيب أعاسني ممن خلوا وخيبوا لا يتوجه لنهوي متئب أني مهد مكاره وتعبوا saadati bi xayri mahwin kutibatu wa kawni yal abdal xadima xatabatu shakara li muyassirul asiri maxtaaro liya bila masiri man zanna xayra llah yuxni aw yaduru fa zaaka fi daarini zu kaddin wa duru adru wa nafu min arrahmani ليس من البيدان والسودان الدر والنحو من الجبار ليس من الفجار والأبرار الضر والنحو من الوهاب ليس من الأعداء والأحباب سبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العدنان سبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العددان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر أجابني الرحمن قبل الخلق سبعين ألف سنة بالحق يقود لي كن فيكون ما أريد وليس ينحوني شيطان مريد درجتي عند الإله ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديم المنتقى وبي يباهي حزبه ذو التقى أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمس أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمس أكرمني بسره المخفي من قاد خطي إلى الكرسي قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل كل خير وشيوخ الترقية قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش ربنا وسبحت جند العزيز في البناء salaamaaleykum wa rahmatullah kàddu gi bàyyi ko ci sëriñ Amsatu Mbakke jëm ci kilifaam gu tedd gi Cheikh Ahmadul Fadal waaye jëm ci sunu sëriñ Tuubaa mi Cheikh Ahmadul Muntaxa nee na amul kàddu genn kàddu rekk am mooy kàddug sëriñ bi moom sëriñ am sëtu mi ak nun ñu topp ci ginnaawam déglu kàddug sëriñ bi rekk fu mu jë fu mu jëmee ñu jëm fa waaye amuñu genn kàddu gu ñuy wax xanaa kay di seeral sëriñ Mouhamadul Fadal mii ak njabootug sëriñ bi mu àndal ak cantam ci sëriñ Tuubaa mii ñu sëriñ Tuubaa tànnal Cheikh Ahmadul Muntaxa nee na loolu de moom lu kàdd gi gàtt-gàtt dana leen ko seereel ci boole gëm ñu boole ci boppam ak yaatal gum ñu yaatal ci liggéey bi ak gàttandu goo xam ne mu ngi koy gàttandu ba lépp lu nu tàbbi ak tasiteek ay taw fii sëriñ bi nee na mi ngi leen di seeral ak cantam ci sëriñ bi waaye di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko ba li muy ñaanal sëriñ bi suñ borom nangu ko te mooy suñu borom wéral ko te yàggal ko fi te mottali ay yéeneem lépp lu mu yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa suñu borom bàyyi ko fi te kàttanal ko ba ni mu ko bëggee mu defe ko noonu ba sa turandoo bu baax wa Sëriñ Fallu la mu waxoon ne xeer wu njëkk wi ci jumaa ji maa ko teg xeer yu mujj yi maa ko teg fàllu Galas loole ñu rafetale ko Sëriñ Muntaxa mi ba liggéey bi mu naalal Sëriñ Tuubaa mu dem ba wëndeel ay caabeem gone yi dugg ko génn di jàng tey mokkal te mu fekk ko sëriñ am sëtu na loolu la bëgg di ko sàkku ci barkeb xasida yi barkeb barab bu tedd bii nga xam ne soxna si tedd si mooy buntub sëñ Tuubaa ndax mooy benn barab ci kaw suuf boo xam ni ku fi teew boo fi ne jàng ab diir mu wóor la ne mos ngaa jataayoo ak sëriñ Tuubaa feneen fu ne da yaakaar waaye fii ku fi teew ku ne boo fi ne jàng rek ab diir dina lu wóor ne mën ngaa teg sa loxo ci alxuraan ne jataayoo na ak Serigne Touba ndax moo wax ne ku fe jàng ma fekk la fi baa nga fekk ma nag mi ngi tawasul ci barke barab bi ak seen jëmm yu tedd yi di ñaanal Serigne Touba mii di Cheikh Ahmadou Mountakha suñu borom dolli ko dolli ko wéral te bu ko kattan yàlla dara tewu ko te murid luñ maasa ñaan ko yàlla yàlla def ko nee daal amul kaddu genn kaddu rek la am mooy firndeel ak cantam ak ñaanam ci sëriñ bi liggéey bi jañuñ ci dara ñoddiwu ci dara ndax jañ ak ñoddi mi ngi ci loxol sëñ Tuubaa te mooy sëñ Tuubaa mbégam rek lay sàkku képp boolewu ci dara kon kàddu gi noonu la gàtte di sant akuk ñaan te lépp delluwaat na ko ci seen loxo ndax daa yéene sant rek waaye yéen a xam lu ñuy sante daa yéene ñaan rek waaye yéen a xam lu ñuy ñaane kon nee na lépp tegaat na ko sa loxo yow Cheikh Amadou Fadal ak njabootu sëriñ bi nga nga àndal waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi rahmaani rahim sëriñ bu ne asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ <coughs> sëriñ Fàllu mu ne maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Muhammadul Muntaqa mii sunu sëriñ di sunu kilifa di sunu njiit ci yoonu morit sunu boroom teg ko ci ci kanam mbooloo murit mi mu wuute fi sëriñ Tuuba ci jamono yii fekkoon nit nag sunu boroom defoon ko muy njiitul lislaam lu mag luy dimbale waa lislaam te di leen ci gindi nee na ginnaaw bu loolu wéyee sëriñ bi nee na nuyu sëriñ am satu mii ak jigéenam biir di soxna bu sa baale jaaratullahi mariamu ci liggéey bii nga xam ne ànd nañ ko di ko jaamoo yàlla di ko bégale rasulullahi di ko liggéeyalal Sëriñ Tuuba ci maamam Soxna Jaara ci seen maam Soxna Jaara sëriñ bi nee mi ngi sant mbooloo mépp nee na taxawaay bi rafet na lool mat na lool ndax boole ngeen seen jëmm ak li ngeen am ak seen waxtu lépp teewe ko ci bis bii bi nee na loolu ñu ci sant baax a baax nee na ginnaaw bu loolu wéyee sëriñ bi nee na mi ngi leen seeral ak cantam ci soxna si nga xam ne mooy soxna Baali Jaaratullaahi Maryamu ci ndimbalul kilifaam yii di sëriñ am sëtu ak ñi mu ci liggéeyam bii nga xam ne sëriñ Muntaxa nee na liggéey bi de ci jëmmam ji ko tàmbalee teg ci njabootam teg ci àllalam fenn fu ca nekk fa mu fa war a taxawe ak na mu fa war a taxawe rafetal na ko ba mat sëkk Serigne Fallou nee na Serigne Moutakha nee na mi ngi leen di seereel loolu nee na mi ngi doole sant Serigne am surtout mi ci taxawaayam bii mu taxaw te ànd ci ak mbooloom taalibe yi di leen ci soññ di leen ci gindi nee kon nag ñaan ci daraw ji Serigne Touba ñi fi teew ak ñu yéene teew ak ñi fi teewal ak ñi yéene teewal ñaan ñaan ñëpp suñu borom sunu yëngu te dolli noo dimbale bu baax ci jëf lu baax dolli noo gindi bu baax ci nanu koy defe jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi doon ànd ak ñun fii nii ci Porokhane ci guddi àjjuma gi am solo nga xam ne ñu ngi ko fi doon amal ci jiitalu Serigne Amsatou moom Serigne Cheikh bu ànd kook kilifa yu bëree bëri dégg ngeen sànq kàddu yu am solo yi nga xamante ni Serigne Fallou moom Cheikh Mamadou Bachir nga xam ne moom la fi Serigne Mountakha Mbacké Bachir yabal mu yëkkati fi am solo ànd ay kilifa ñu nekk ak Serigne Saliou moom Serigne Fallou moom Serigne Cheikh bu Serigne bi mu mel ni teewee nga guddi àjjuma gi dégg nga soññee fi am dégg nga xas yi nga xam yëkkat nañ ko fi yan kàddu nga yëkkati ginnaaw bu ñu ñaane ba noppi. Euh, sant yàlla rek sant sëñ Tuubaa bu baax te di ko def gën a def ab soññ ab soññee rek ndax euh, sëñ Abdou Lahad daf ñoo masa wax ne mm, sëñ tubaa ni mu def rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba rasulullahi def ko ni mu ko def noonu rek lañ ko war a déem a def suñu kem kàttan te day diggam ak rasulullahi mat na junni at ak nangam te teg na jomam ak ngoram ak yitteem a pësëf ba ñëpp maase ci xam ne ña àndoon ak bi di ko gis day waa këram ak sahabaam gañewuñ ko ci moom kon nag moom mi nga xam ne bërki démb la fi jóge ñun ñii ña àndoon ak Sëñ Tuubaa buñ ñu gañee dañoo ñàkk jom te ñàkk fu la waaye mën naa bi ñu am ku mel ne sëñ Cheikh mun Mountakha mii nag nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp njabootu sëñ Tuubaa gi yàlla na yàgg kooku kum soñut dootoo soñu ko mukk ndax fi mu toll ci ay at ak wéram mayetuk ko ak mageem mayetuk ko waaye toujours mi ngi gën a soññ ko di gën a xeeb boppam di gën a xeeb jëfam di gën a jëm ci sëñ Tuubaa te bolewu ko dara kon nag ku nekk ci yoon wi rek loolu rek war na laa dooy ab soññee ndax bi Ibrahima Fall daa wax ne waaraate wóorut fexe ba ku la gis waaru moo ko gën a wóor waaw li ñu fi def lépp nag jëf ji lépp weesuwul sant rek ndax sëñ Tuubaa ci boppam nee na xasida yeeg wax ji mu wax lépp jubluwu ci lu dul sant boromam aqulu saa tahaddusin bin niami loolu nga xam ne moom la yonent bi sala suñu borom waxoon yonent bi waaw amma bi nihmat rabbika fa haddis loolu rek la ci sëñ Tuubaa jublu ñun ñiit lépp lu ñu jëf te am na ci sëñam satu wax na ko léegi ci ay kàddoom sant sëñ Tuubaa rek la ci jublu ak yéene jottali ak santam ak fedd feddle ko laxasaayam kon ñun ñëpp nañ ko deful soñ rek te wéy rek waaw ab murit moom moomut moomut ak dundam li ñuy dund lépp sëñ Tuubaa ko moom buñ dee sax moo ko moom waaw ndax kam doon liggéeyal moom amut fu muy yem ak moom dane ko axdimuhu ilaa du xoolil janna daaril xaraari wal munaa wal na kon nag ñun dañ koy liggéeyal ba dee rek dugg ci bàmmeel te ñaan sëñ Tuubaa sax buñ duggee ci bàmmeel di ko fa liggéeyal wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi li mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlale woon tey ji euh, fukki fan euh, ñeent ci mars 2019 diggu daajuma ga am solo bi nga xamante ni amal nañ ko fii ci Porokhane ci teewaayu Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou ànd kook mbooleem kilifa yi waaye it euh, ki nga xam ne moo di xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir nekk fii nga xam ne moo di ci Porokhane ñëw ngir fas yéene amal màggal soxna Jaara gi le 28 mars euh, incha allah di leen santaat bu baax a baax di leen gërëm ci ànd gi ngeen àndoon ak ñun dégg ak ñun mboolem xas yi nga xam ne jëm na fii di rajas di kuréel waaye it yu am solo yi nga xam ne yëkkati nañ ko fii ginnaaw bu ñu ñu laataa ñuy ñaan ci Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Bassirou nga xam ne Cheikh Amadou Mountakha moom la fi yabal ngir mu yeewi mbooloo mi di leen santaar bu baax di leen gërëm di leen euh, wala di sant bu baax a baax suñuy euh, cadreur muy euh, Mountakha Ndiaye Gabon ak sëriñ Serigne Daouda Guissé di leen sant mbokki téléspectateurs yi ñu doon bàyyi xel di sant mboolem ñi nga xamante ni ñu jàpp ci liggéey bi digg leen dajee ci yeneen reportage wala yeneen i euh, événement yoo xam ne day am fii nii ci Porokhane lépp rek jëm ci màggalu Soxna jaar gi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf